tien également ñu nag ñëwaat ci plateau bi ak sunu ay ñaari gan yu ñu rejoindre Mame Boye Diao nekk responsable euh, politique euh, leader de la coalition Diao président nekk candidat à la présidentielle à ma gauche à ma droite j'ai Ahmed Aïdara député maire bu Guédiawaye nekk directeur de campagne bu coalition euh, Gakou président ci Mame lay commencé di la nuyu bu baax baax di la remercier également ci soutien bi nga xam ne yaa ngi koy affiché ci jamono yi nii. waaw kër gi yëpp ndax euh, yéen moom suñu ay àndandoo ngeen. Mhm. bu neexee ñooy ànd bu naxaree ñooy ànd. dëgg la te donc ànd moom mooy nit ki bu amee bësam rek nga teewal ko bu bu neex beeg safaan bi. Mhm. donc euh, li ma war laa ñëw def si di nuyu Ahmed di Ahmed Aïdara di suma xarit. Mhm. monsieur le maa ngi koy nuyu. xam naa ni duñu guddal ndax gis naa ñi nekk ci biti yëpp. ñu bëgg a témoigner euh, seen solidarité ak yéen. attaque bi noo koy qualifier waaw ni ma ko waxee rek c'est une attaque lâche xam nga euh, lâcheté mooy yow nga bëgg a fayu sax nga ne doo taxaw jàmbaarloog nit ki. da mhm. def ba pare daw. Mhm. loolu mooy lâcheté parce que nit tamit boo amee conviction li ngay xeex da ngay taxaw jëmmal ko mais nga def lu la neex dem euh, parce que pour yow c'est une personne qui dérange mais en fait moo tax je sais que sur le plateau amul presque lu ñu waxul. depuis tout à l'heure les témoignages sur la liberté de la presse mm-hmm. sur les agressions que les journalistes et les hommes de médias ont subi mm-hmm. yéen xam ngeen xam nga agression yi afa am ay agression yi nga xam du bàyyi ay ay ay ay signe ci mm-hmm. yaram mooy pression yi ngeen di dund way defeel nii waxal ci diw waxal lii loolu yëpp nga koy dëkku loolu dafa métti déjà dans un monde concurrentiel boo passé foofu nga xool les agressions qui peuvent venir de part et comme des pouvoirs publics Euh, mais loolu yëpp da nga koy jël dans le contexte dans lequel évolue le Sénégal et qui est un contexte très dangereux. Mm-hmm. mooy sunu réew euh, en réalité quand on est un incompris on est agressé. Mm-hmm. on est agressé verbalement. on est agressé physiquement te loolu dafa. mais dafa dafa atteindre beneen niveau. avant l' agression était verbale on a atteint voilà. on a les fonds et, et rien n'émeut les gens à dire mënuñu jëm ab jigéen. Mm-hmm. loolu laa wax jigéen nga jëm ko paaka après. que ngay ut ay justification rien ne mhm. peut justifier ça. ce qui est dommage mooy y des gens qui cautionnent cet acte publiquement à visage découvert. oui gens là doivent être parce que ça c'est de mhm. l'incitation à la violence aussi comprendre nga ne mënuñu jam doomu Sénégal waroon na nekk en sécurité mhm. partout où il est mais bu ñu jamee doomu aadama nga war cee nekk di expliquer sax dafay doy waar parce que bu ci bakkanam heure bi leneen lañuy wax mais xam nga suñu réew nee la quand on se réjouit de prendre une pierre et de la jeter sur un policier mm, à terre benn doomu Sénégal la quoi le policier qui était à terre doomu Sénégal la ñu jël xeer di ko ko sànni ñu am ñu koy bàkkoo am kuy bàkkoo lu mel nii mooy on a atteint tous les fonds mmh. et c'est pas ça le Sénégal mmh. Sénégal melul nii jërëjëf Sénégal melul nii mais Mamadou Awa man da may may rek parce que loolu moo ma indi mm-hmm. xam nga tamit ki ñuy ki ñu laal suma nit la mm-hmm. man mais suma xarit la mais Maïmouna bi ma koy xam mu ngi sincèrement quoi 2STV c'était pas avant ma gisoon ko dans des chroniques économiques qui m'intéressaient mais euh, ma gis nit bu amoon ambition ambition parce que dafa am beneen perception bu mu amoon beneen façon bu mu gëmee woon métier mhm. mu ñëfe ko nag mu ñëfe ko lu ne jiiñ nañ nañ ko moomul télé bi lu ne dañ <laughs> te pourtant xam nga dinaa ko wax fii léeg-léeg ngeen doon tëb ci buggee kanaal bi mhm. parce que amuleen woon li ngeen di fayee mhm. yaakaar naa bu amoon ay nit yu nekkoon ci ginnaawam amoon doole mhm. kon du fi toog weer toog du mun fay sax buggee canal mais lu koy ñëfe dans la dignité xam nga bi yegg fii tey aujourd'hui par exemple mënoon na toog ni kilifa la je j'ai une télé donc mënoon naa tax fàtte sama métier journaliste mais téléwul muy ñëw presque trois ou quatre fois dans la mm-hmm. semaine mu ngi ay animé ay émissions yi nga xam ne il faut être résilient pour le faire c'est deux mm-hmm. heures d'émission ou trois mm-hmm. en direct ku ko kan ban doomu aadama moo mun nekk ci délai trois fois dans la semaine te yaakaaroo sax def ay erreur wala ay digression donc man kooku même bu defoon ay débordement ci man dama koy baal mais damay damay je suis impressionné par son désir de pouvoir se réaliser et son rêve de vivre pour la presse pour la démocratie parce que yéen en saa yu affaire bi sottee am na ñeneen ñu koy moom. Mhm. mais 2000 2000 presse moo tax. keneen falu fii ci réew mii. Mhm. 2012 tamit presse moo tax keneen faluwaat tey encore presse ak nu mu demee ci xarala yu bees yi mooy taxaat keneen falu. Mhm, donc yéen da ngeen bokk ci combat bi et vous n'êtes jamais vous êtes comptable mais vous n'êtes jamais quelqu'un qui va jouir du combat que nous menons pour la liberté dommage, et la démocratie donc vraiment ngeen xam ne yéen ñun ñoo bokk na naqar bi te nag ma rafetlu nag say naataangoo journalistes yi nga xam ne jóg nañ. Mhm. pour sax wane seen naqar tey ak seen soutien. Mhm. te bu leen ko bàyyee bu subaa it seen i ñoo woote pour démocratie Sénégal. Mhm. waratu leen wéet ci li ngeen di xeex. Ahmed mi toog tey. on doit faire bu ko Sénégal xamee micro moo tax. c'est vrai te. avec une façon une arme une façon de faire qui lui a valu d'être l'homme qu'il est public donc ça ouvre tout mais même na moom yàlla na ko suñu borom sàmmal foofu te gëm naa jarul sax ñu ko koy wax te ni bu wéree ci jàmm dina gën a amaat doole sarañ pour defaat li muy def mais ngeen xam ni yéen tamit bu ñu nangu kenn ci yéen sumuranke ci jamono bu mel nii jërëjëf sant bu baax a wax kaddu yi foor na am na solo